Mhm. léegi nag ñu dikk ci euh, mbir moo xamante ne nii waa Touba ci kanam sémbu nañ ko moom mooy euh, euh, assainissement wu ville de de Touba mhm. la ville sainte de Touba mhm. donc dañu am yéeney eesalaat ko ci mbiri assainissement maanaam ndox mi bu tawee léeg-léeg mu am foo xam ne dafay tagga témbe du dem ñoom it ñu am programme boo xam ne le huit bii dafa am luñ ci bëgg def nga jàppale leen ne leen communication bi faaw ma sémbu ko loolu de xanaa benn murit rek war na ko mën ne sàcc ne kaasug manam mois d'août le Touba ci kanam juddu 2016. Ah. mi ngi door am ñeenti at. Mhm. en 4 ans bo xamone liñ fi réaliser hmm. day melni ci yow ay gédd. wallahi parce que fi ñu toll ni le huit bi ñu jëm événement la bo xamné dañ ñoo dañ leena jox ay devis bi ci gëna cher 500 millions la bi ci gëna jappandi 300 millions la. mais bo gisee man ma joxé fourchette bi moy dama xamné ne yi seen xol ëpp na lool mhm. donc ñu xool ay point cible te sëriñ Mountakha ci yërmande ja moo leen woo ndax ndigal rek am solo uh-huh. ne leen bu diisul ci yéen sëñ Touba mu di la yen di la yen ba yàgg mu ne la bu diisul ci yow <laughs> bu diisul ci yéen day bëggoon naa ngeen xool barab yi nekk ci Touba te ndox mi di fa taa ngeen dindi ko balaa ñoo àgg ci màggal gi diggante Touba ak Mbàkke fi mu ne nii fi tolloog station nangam ba uh-huh. ba damay bañ a def pub uh-huh. foofu fi mu ne kenn munutu faa jaar. léeg-léeg dañuy àgg ci deux voies yi ñu obligé jël benn bi. tey boo jógee euh, ci jumaa ji war a jaar gaar bu ndaw jëm ndaamaatu da nga teggi ba xëm. Hmm. daaru xuddoos fi tolloog sàq mi daaru xuddoos ci garab yi. Euh, gaar bu ndaw mbal euh, fi ñuy wax ndaamaatu am na ci côté yoo xam ne maanaam seeni dëkkuwaay ñoom tuxu nañu. Hmm. quartier yi benn par benn daanaka amul benn quartier Touba boo xam boo fa duggee fi ne nii doo obligé di teggee léeg nga war a jëm ci kër goo xam ne mi ngi ci digg ndox mi. Hmm. te nag dafa am lu bees tàq mooy màggal gii ñu ñëw ak peut-être quinze ou vingt prochains màggal yi ci biir nawet bi lay doon. Hmm. Touba ca kanam nag ne dañuy màggal te pepp ndox du taxawaalu biir hmm. Touba. defee wuñ ko seen xel dañu wut ay ingénieur

Euh, canalisation mu dem directement ci ci station d'épuration yi mm-hmm. am zone yoo xam ne dañuy gas ay pour bu ndox mi ñëwee ñu def ay tuyaux mu walangaan dem ci biir am zone yoo xam dañ fay installer ay pompes jënd pompe yi carrément installé ko fa. Mm-hmm. bu ñëwee ñu manqué ko mu jeex. wutal yoon wutal ndox mi yoon. tali yi nga xam ne amoon na ay toj-toj ak ñab-ñabal. ñu defar ko mi aussi mener circuler te du yàq dara. Mm. donc lii dañ koy lancer lu huit. ñuy ñaan murit yëpp nag waxuma la yéen bitim réew waaye murit Sénégal yi xajuñ ci. xajuñ ci du matu leen ngoon xaalis lañ soxla xaalis. <laughs> mooy mooy énergie bi njëkk. wallaay à défaut. Uh-huh. kuy jaay ciment li ñu soxla ci ciment peut-être ëpp na àgg na deux cent quarante tonnes. Uh-huh. soxla nañu fer. Uh-huh. soxla nañu béton. soxla nañu ay mètres cubes de sable. Mhm. soxla nañu aussi logistique mooy camion yi ak pelleteuses yi ak nivelleuse yi ak yi nga xam ne dañ koy liggéeyee PVC yeeg yooyu ngir nit ñi maanaam soit day ne xaalis wala mu nekk nature. Mhm. ku yor nag entreprise boo xam ne aussi yaa ngi yëngu ci ay génie civil ak ay travaux publics ñoo ngi lay woo. ñi ngi woo murit yépp yi nga xam ne. ba ki nga xam ne moom kattanam ci mille francs dong la yem. Mhm. mu joxe ko te xam ni euh, <laughs> sax ci ci yëf e yi la. ci jàpp la boobu ci kanam moom.